Mali euh, am na benn audio bu fi doon circulé euh, booy bi expliqué naan dañ koo kidnappé lu ne mu koy wax wax audio bi parce que def na ay vingt et un minutes ginnaaw bi audio boobu amee dañ ma ci interpellé woon doon ma ci laaj ay question comme yàlla dogal na xam naa Ségou xam naa fa jëwriñu daayira fa nekk xam naa président communauté représentant président communauté sénégalais ba fa nekk mu ñu koy wax Serigne Abdou Ñing effectivement loolu am na waaye nekkul ne dañ leen a kidnappé foofu ña fa nekk ñoo fa bàyyi seen bopp ñoo fa yebbu seen bopp kenn téyewu leen fa kenn kidnappé wu leen fa bari na ay sénégalais bari na ñuy wër seenu njaboot bari na ñuy wër seeni doom ñu ngi foofu ci Ségou ci benn kër foofu euh, y a plus de trois cent et quelques personnes. donc euh, mu nekk loo xam ne nii lii lu ñu war a xoolaat la. bari na ñuy fi ñuy nekk ñu naan ñu ngi Mali seen doom dañ leen a kidnappé foofu dañ leen a jàpp loolu amul c'est pas vrai kenn kidnappé wu leen ñoom ñooy def dil di woo seeni mbokk ngir ñu jox leen xaalis. ngir ñu mën a dund foofu nek ken mais kenn kidnappé wu kon ñu xam ne ñi nga xam ne nii seen i mbokk ñu ngi leen di wo di len wax naan leen dañ leen kidnappé ci mali loolu amul ci territoire mali gépp amul fenn fenn fi kidnappé sénégalais sama mbokk maa bëgg dund sama mhm. dañuy dañuy dem ci dëkk ci sous région bi mhm. bu ñu demee di woo seen ay mbokk naan dañ leen a jàpp kidnappé dañ leen laaj xaalis. Mhm. kenn laaju leen dërëm. waa ji nee na am na kër goo xam ma nga Mali kenn téyewu leen fu ñu futee seen bopp bu ñu demee ba yotuñ dara ci la teg benn dil woo seen mbokk naan dañ ñoo jàpp fii pour ñu leen xaalis. heureusement ba dil ba feeñ na. dil ba kalaate moom ñi jàppoon nañ ko ba bu ko moom mi doon wax ci audio boobu 21 minutes boobu noonu. Jangan nañ ko nit ñi moo tax kenn réew mi kenn jar sa wóolu ah. yaa ngi woon ci taximan bi mooy nga ne dafa mujj faatu kan mau ci kan mooy joxe explication yi nijaayam ki nga xam ne moo ko taxi bi muy dawal ndeysaan waaw jox ñu dégg maa ngi am na bokk ndey ak bàyyi sama oto la jàngi oto ba mu am peen yàlla xam na fo rek moo leen tax a jóg ba rey doomi jàmbur ji nii rek rek jox dëgg yàlla ma sax yow yaa ko joxoon oto taxi bi nga xam moom la doon liggéeyee soo gisee ay xale yoo xam ne ñi ngi góorgóorlu toog ci dëkk bi di daan doole léegi yow loolu biñ la waxee xibaar bi noo ko dundee biñ ma waxee xibaar bi daf ma naqari ndax man damay dem banque jël xaalis jënd ay oto di jox samay mbokk pour ñu liggéey am dara ñum bi ne da ko fan la mu ne asalem ma ñëw seetewoo bi may ñëw susul la sapeur yi génn di dem ma dajeeg ñoom ñu ne ma wàcce nañ ko mu ci biir accident ba fekkuma fa yóguma lu xew naqari na ma trop trop ndax nguur si ku baax la ku yaru la ku am diine la amu kon benn problème ndax ku jënd oto ay million jox ko nit am nga ci moom yaakaar yal na ko yàlla woyofal suuf ci kawam te ñun ñëpp ñu muñ mbokki ki nga xam ne itam ñoo gaañ xale bi fa la ñu neen li ñu jëkk a fay walaay asim ñoo ko fay parce que seen xaalis eh, ñee seen jeex lu ma fere nañ ko def ma ma ne leen lu ma fere jarul ngeen ma koy delloo sama bopp laa defal fala ñu nekk man ba trois heures moins mooy leen dem leen ngeen ñibbi comme ay jigéen ngeen ba nijaayam ñëw ay cinq heures dix ci la Fala Ndiaye wàcc liggéey. ñu ngi wàcc liggéey yaa ngi ci hôpital bi. maa ngi ci hôpital bi après ñu dàq ma après ma ñëwaat ñu naa ah, sëñ bi day lu ne dañ nga ko nag lu ñu la jënd loo jënd nga ko waaye yàlla muy ñëw ñëw naa topp ak ndogalam mënuñ ci dara. ah damay bàyyi mbir mi lépp koy yoon ñu xool ndax itam ay mbokkam wax dëgg ah ñu fexe yaraat seeni doom ndax jikko bi ñu wane ci hôpital bi waruñoo jur ku mel noonu ndax lu ne jooy nañu lu ne dugg nañ ci métit nañ ko trop te ne ñu ngi ñëw léegi ci rob bi kon nag ah ñu bàyyi lépp ci loxo yàlla. waaw faale moom ñoo bokk garage waaye wax dëgg yàlla. Jam rek euh, la xam si moom ku mën a kaf ku mën a ree waaw ah, moom amoon na soxna waaw am soxna ba am benn doom da doon waaj jël nii sax da doon waaj jël ndax da doon wax naan day ndax rakk ji daa jël ci weer bi passé moom mu ni day bàyyi ba am ay mois mu jël gis taxaw nañ ngi fi metti na lool euh, man gis barki waaw barki mais papam mi nga na fa dafa leen bi muy ñibbi moom moo ko jël ak sama grand bi yóbbu leen ba buntu Pikine après moom mu continué moom ñëw CTO indi soxna grand bi waaw démb rek ñëwaat ñu ne CTO moom mais ku ko waxoon ni ko CTO ngay ñëwaat di fay deewee kon kenn ku ko xont ko gëm sax waaw wax dëgg yàlla. soo gisee ñuy wax pour encourager jeunes yi pour ñu toog ay jeunes di góorgóor di ñafe di daan seen doole ay booy di fo keneen ci ñàkk bakkanam waaw loolu mu nekk tamit loo xamante ni lu ñuy déplorer la te foog nañu dossier bii tamit du ñu bàyyi mu sedd parce que nit kuy ñëw di daani dooleem xale bu ndaw soxnaam nekk xale bu ndaw bi taawam bii tamit bi ñu koy doogaam benn doom la am amagu sax deux ans di xëy di daan dooleem ay xale jóge fële yor seen i di fo di def du leen neex rey doomu jàmbur si comme ça j'espère que actuel moom loolu kenn du ko seetaan am na ni ngi ci réew mi di ñafe di daan seen doole amuñoo kenn problème waaw te lii moom di leen di leen rey nii comme ça dafa dafa metti merci beaucoup dégg nga ko awa dëgg la de muy noonu ah, ah yéeme na de trop xam nga moom bu xamoon ni STO ga mu jóge woon dafay delluwaat te bu delloo doot fa jógee léegi xam nga li yi di laaj maa ngi koy gis ñu ñu ñuy bind message mooy. Ah. booy wala booy yi def accident bi. Hmm. ana fu ñu fu ñu mujj. dañ leen a téye loolu nag yoon yoon mi ngi mi ngi mi ngi ci. Hmm. waaw yoon mi ngi ci. accident bi tamit métti na de. taximaan bi tey xam nga bu masaan teg taxim bi ci tali bi. pour ne hmm. ci wut dara. bu weer wi de bu dajale li muy am ñaata nit ñoo ca wékki woon. après nag waaw nit ñi dinañ ne yàlla fu mu fu mu yemale bakkan fa la yem loolu moom nangu nañ ko. Hmm. dafa am loo xamante ne ji nag metti na de. Hmm. metti na torop torop torop torop torop. mais xale yi ñoom seen i at fu mu toll. booy na man man nag gisuma leen. ok mais xam dal daal ay ay ay ay jeunes lañu ay jeunes lañu ma xam mo mooy genre fils à papa yo non rek. walaay boo demee sax mën naa bañ mën naa bañ a doon ñooñu de. ñun ñëpp ay fils papa lañ ñun ñëpp am nañ papa joo xam ni bi mu ñu juree dañoo yar. fonk gu ñu am fu mu ñu teg mais carrément li metti na quoi. li metti na trop. aba du gis nga fan yi comme coowam gaal yeeg yooyu noonu. Mhm. ñi nga xam ne dañuy encaissé fii nit ñi seen xaalis ndax leen daw dem seen xaalis Maroc ma ngay toj. kon yow da ngaa pare ci taximaan bi nii. waaw. ci sénégalais ak sénégalais yi. ayca daaw dafay mii. Hmm. encaissé ca Maroc. Hmm. ni leen di yóbbu Espagne. nee nañ rek xaalisu gaaya ñenn ñi lañ yoroon yëpp jox nañ ko ko dem na seen xaalis. léegi yow nga foog ni moom day na sànq wala day na dimbali. ah sànq na leen dimbali na leen de sànq na leen mooy la ñuy dajale woon ñoom ñëpp yóbbu na ko. loolee foofu la waaw mais dimbali na leen ndax à tout moment ci biir gaal yi mënoon nañu faa dee. et au delà de egg tamit. dimbali na leen dimbali na boppam. dimbali na leen parce que tegu leen ci géej gi dimbali na boppam ba yor na tuut ci poosam. est-ce que nekkul di sensibiliser booy indirectement. waaw waaw à sa manière way ku nekk am na nooy sensibiliser. nañ déglu jox ñu déglu. Daouda fay man xawma fu mu dëkk ci Sénégal parce que xam naa la ko man mais fii lañ xamante ci Maroc daa am photo bi ma la mujjee yónni ku ñuy wax Bira moo ma boole ak moom ñëw fekk ma fi ma nekk ci Maroc man maa Maroc maa Agadir ñu ngi ci Agadir ci tool yi fi ñuy liggéey mu ñëw ma am sama ben grand boo xam ne dafay yóbbuwaate benn caawmaan moom la ñu yóbbuwaate ku yëpp képp ku yóbbuwaate rek caawmaan lañ lay wax am naa bu yóbbuwaate Espagne mais un million cinq cent lay laaj avance bi trois cent mille la soo duggee nga jox ko un million deux cent yi dégg ku ñu wax biraa moo booleeg moom biraa ba mu booleeg moom biraa la àndal ñëw sama kër seet sama ñu toog waxtaan ba juboo ci kaw yi kàddu yaa dégg ndekete ñoom lañu wax ak man defuñu ci dara mais man ba ma fi ba ma leen joxee trois cent pare ba ma ba dem tantan fa ñu ma dee fekk naa fa yeneen nit yu mel ni man ñoom tamit li ma wax lañ leen wax ñu toog di leen xaar mais toog nañ tantan weer gisuñu moteur suñu dara Daouda fii laa ko xamee ci Maroc xaw ma fu mu dëkk ci Sénégal Maroc yi laa ko xamee ki ñu ki ma booleeg moom mooy Bira moo ma booleeg moom man Bira laa gën a xam ni Daouda. man mii di wax ak yow man nii man ci laa bokk daf ñoo waxoon daf ñuy yóbbu Espagne dañuy dem tëb combat kenn ku ci nekk mu lekk ci yow laaj na la avant laaj na la euh, avance trois cent mille mooy cinq mille grammes bi. kenn ku ci ne laaj na la avance trois cent mille mooy cinq mille trois mille léegi bu ñu laajee avance kenn ku ne trois cent mille ku ci nekk jox nga ko sa trois cent mille franc yaa ngi dégg ñu jógee fii ñu yóbbu amuñu fu ñu yóbbu moo fi dëkk bi ñuy wax tantam ba ñu demee tantam ñu toog fa weeru yàlla toog nañ ko tantam di xaar chaque jour mu naan moteur bi ñëw naa ak moteur bi ñëwagul moteur bi ñëwagul moteur bi ñëwagul moteur bi ñëwagul ñu toog rek di xaar. ba man ba a dégg ak léegi man mi di wax ak yow mat na ñetti weer. parce que boobu ak léegi damaa jógee fa tantan ñibbi si noonu lañ toogee tantan di ñibbi par benn benn ba mu jeex am na ci ñoo xam ne pour nga amee paas paas jóge tantan dellu coot fañ nekkoon sax amuñu paas daa dafay dem na boo yaa ñii ña nga tam-tam ñii ña nga ci yeneen dëkk marage daa du yem na seen xaalis daa doon contacté nañ ko sax nag hmm. waaw moo ne lan bloqué ah waaye bu amee ful la waay damay bañ a indi benn kii mais kon danaa ne ko daaw de mën daaw de fay va pour bañ a yegg ci baabaa ji. <laughs> kii Ndiaye. vatan yaa ngi laajte léegi xale yi ñaata at la ñu xale yi 17 ans la ñu am ñu ngi ñu ngi ñu ngi police. ah ñu ngi police daaw de mii sa amee ful hmm. la. moom na jël ci avion dellu si Ndakaaru kii toog fi. Dakar moo ko nag est-ce que xam nga ne caaman yii nii Maroc bu ñu jàppee. moom laa ko wax 10 ans la. doo may dañ leen di sànq sax. Hmm. ñii mu jël seen. caaman yii waaw ñi mu jël seen xaalis nii ñoo koy sànq. tey euh, dama bëgg ku ci nekk ci ñun mu jël portable am tii ko ak ñiy déglu ñëpp nga bind SMS. Euh, ah. envoyé leen une très bonne journée ñi nga xam ni. xam nga leen fréquenté nga leen te xam dañoo bëgg toilette. Euh, tey la journée internationale des ñi nga xam ni xam nga leen te nga xam ni dañoo bëgg toilette nga jël sa portable ak. koo xam ne rek yaa ngi déglu ban xeetu toilette. toilette tu kii. Nda Ndiaye douze ku ci nekk ak sa soxla. Ah. ñi bëgg dugg ak génn bi laa wax ñi bëgg dugg ak génn. am na ñoo xam dañuy sangu tout le temps am na ñoo xam ni dañu tuur ndox tout le temps am na ñoo xam ni nañu dem àllu présidence. waaw mais gisoo la borom xam-xam ba waxoon. boo duggee toilette de bind ci c'est là où s'incline toutes les dignités. <laughs>